leen di gërëm di leen wax aussi ne leen euh, Djibril Fall bi ngeen xamoon ak bi ngeen gunge boobu tey jii la gën a réaffirmer sa position incha allah sunu xel xalaatul ñuy nekk ci leneen lu dul taxawu askanu Sénégal bi ñu jógee dañu waxoon ne sunu yitte moom mooy incarner une troisième voie troisième voie boobu ci loolu la ñu nekk ba tey jii benn interlocuteur rek la ñu am kenn rek la ñuy waxal muy askanu Sénégal. donc te loolu ñoo ngi ciy dalal seen xel bu baax a baax a baax demuñu benn bokk yaakaar waajuñu dem benn bokk yaakaar sunu xel nekkul ci dem benn bokk yaakaar askan bi rek la ñu yittewoo askan bi rek moom mooy suñu préoccupation loolu ñoo ngi leen koy wax di ci dalal seen xel di leen wax ne leen incha allah li nekk ci sunu kanam moo gën a màgg fuuf te jàpp nañu ne liggéey baa ngi doog a tàmbali waaw li ñu bëgg nag moom ma sàmba mënuñu ko jox ma demb mënuñu ko jox sunu njàmbarte ak sunu dogu ak sunu taxawaay laaj ko ki nga xamante ni moom mooy sunu borom loolu ko li ñu bëgg moom moo ko amee donc ma sàmba amu ko ma demb amu ko donc maa ngi leen di gërëm di leen sant